woo si quartier Cham nekk si diggante commune bu la ak commune bu Louga génn nañu fesal seenu jafe-jafe yi ni ñuy jànkoonteel. sunu koñ bi tilim na lëndëm na xasaw na ku saw nag dee fi nga koy sànni si ku sam xar dee fi nga koy sànni si sunu gone yi ñu ngi leen di téye di leen yeew ci tabax yi bari gi démb sunu benn dëkkandoo leen fi jàpp doomam yenn ko di yóbbu ci bëccëgu ndara kàmb xam nga ni kon sunu koñ bii moom. dëkk ñàkk pexe rek leen fi dëkk. ñoom ñi nag son noon lool ba ñuy wootee wàllu. ñu jàppale tamit suñu yaay yi nga xam ne ñoo nekk si koñ bi comme suñu jigéen ñi ñu ngi leen wax ñu dimbali leen bu baax a baax a baax a baax a baax. bokk na nag si jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel rawatina wàllum sécurité ak ñàkkum jumtukaay. sécurité bi nuy wax ak wàll mbalit mi bëggoon nañ tamit euh, mooy seen gën di jooy mooy Sonatel may leen loxo tamit ci wifi wifi bi ñuy laaj. bëggoon nañ tamit benn lu mel ne case des tout petits wala école boo xam ne samp nañ ko fi pour mu man ñoo jàppaleel suñu xale yi ndax fii nii dafa xaw a sori école yi benn école moo fi am muy institut islamique franco arab bu Serigne Sambay waaye dafa doyul ndax daanaka école bi li muy jël dafa bëri voilà léegi nag li ñu soxla dëgg-dëgg mooy ku ñu taxaw. askan wi nag sonn nañ lool ba tax ñuy fësal seen i jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel rawatina ñàkkum sécurité ñàkkum jumtukaay ñàkkum lekkool ak yu ba tax ñoom ñii ñoo ngi woo nguur Sénégal ngir mu jàppale leen ngir seen quartier gën a mën a ñoŋ